nekk nag ñaan yàlla rek def fi lu baax ba yàlla di jëli waaw ñii ay xale lañu kilifa mu boole ñoom Boubacar lii ci bokk mel ni bi may ambulance bi ne woon man nag dafa am lu ma gëm social man kuy social rek am na ñu bëri social am boole ñoom léegi nag ma bëgg a waxan askanu Thiès ndax ñoom am nañu ay doom autorité yi ñoo ngi ay doom te lii dafa daw yaram ay xale buñ demee ba amatuñ fuñ fanaan ngeen toog ne yéen bëgg ngeen dëkk bi maa bëgg ngeen doomu dëkk bi man mënu ko gëm am na ñi nga xam ne nag wax naa leen ko damay jël sama kii bopp ñoom dinañ jël def ca ndax am na ñu ma ci jot a contacter ku mel ne Ablaye jël Ablaye Dieye jël na engagement moom dina ci dugal loxom ku mel ni ab Ablaye Dieye dina ci dugal loxom ndax social moo ñu boole ak def lu baax xam nga lu ma la waxtaan naa ci ak moom même docteur Pape Amadou Ndiaye moom nee na dinañ dugal loxom xam nga lu ma la masal yi nee na dinañ ci dugal loxom mais ki nga xam ne sama xarit la mooy sama lépp alaaji Mor Gueye sopp na bi te buy defali yàlla rek a tax muy def moom dina ci dugal loxom ñi ci des nag mënu ma leen gis mënu ma leen dégg xam nga du mel nii rafetul ci ab dëkk lu mel nii nañ xool ndax rafet na man am naa njaboot samay doom a ci daara ji di jàng te bëgg naa ëllëg buñ jaaxlee am lu leen taxaw président de la mii étudiant la woon xam nga lu ma wax kees moo métti yu mel nii bu amoon kees man kenn ma ci doon jàppale fii muy ndey tikke wallaahi ndax yu mel nii amoon na ci ay étudiants bi ma ko waxee daf ko lijjanti xam nga lu ma wax mais nawatu fi fexe na ba jóge ba nawatul ci dëkk bi te yu mel nii yii rek laa doon bañ nag te li ma bañoon lépp ma ngi nii am na xale yi dañ leen jàppale ñu defal leen lu ñu bëgg am nañ ko mën nañ ko même bu dul dara nañ def te yàlla tax ñu xam ne ëllëg dañuy njaboot xam nga lu ma ñii ay xale yi ndaw lañu ëllëg xam ma mun nañoo jariñ ba ma ba ñu rom ma jariñ ma loolu lépp man man man loolu rek a ma ci dugalaa ah. ñu ñëw seet si ma te yàlla tax ba kaane Boubacar lii ma ne incha allah man dinaa ci wax xam nga lu ma la man na jël naa intention ku mel ni Abdoulaye Dieye moom dina ci def incha allah rabbi koo jël naa ko masal yi wax na ko wax naa ko Omar Sarr na dem seet ko ñu waxtaan mu jox El Hadj Mor Gueye dina dugal loxoom docteur Pape Amadou Ndiaye wax naa ko mu ne dina dugal loxoom yëg ko won nit des nag mënoo leen jot kaa mel ni Omar daan na kees Thiès mais vraiment ndey tikki rek laa ko doon wax mu lijjanti ko comme newatu fi nag léegi yàlla xam doy na léegi nag dëkk bi nañu xam dina jàppale xale yi yéen a ngi ne bëgg ngeen maire yi yéen a ngi ne bëgg ngeen ñu fal leen te yéen xale yi di wut mun leen leen jàppale mais xale yi bu ñu màggee dañuy noonoo ak ñii da ngeen leen war a jàppale seeni doom ak seen i jarbaat dong nga fi nekk nag am nga lu ma la man dëgg bu jotee de ma la koy wax bu pare pare naa ca man nag kees nee naa la képp jullit bu jaaxle bu ñëwee ci man lu ma ci man dinaa ko def maa ngi ñaan yàlla aussi yéen yi yéen ñii taskatu xabaar yi ndax yàlla yël yël yël yël la diine gën a respecté ndax li ngeen di def nii yéen a ngi ciy jaamu yàlla ndax lii tey jaamu yàlla la ñii te leer na ma ñii ma cité fii daañu dugg dinañu duggal seen loxo loolu moom man maa leen ko assuré sama xarit alaaji morgue sopp na fi maa ngi koy woo ci lii ndax moom lépp lu neex yàlla da ko ci dugal lépp li nga xam ne day tax nit nit siggi nit sigi moom dinañ dugal loxoom allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa salli maa ngi leen di gërëm di leen sant xale yi jërëjëf waay lii la am lu ma doon wax waaw asalaamaaleykum maa ngi tudd El Hadj Dame nekk président cercle des étudiants Thiessois bu université Gaston Berger bu Saint-Louis euh, li waraloon tey suñu point de presse bi nii c'est juste pour euh, métitlu di nakaarlu aussi jafe-jafe yi doomu Thiès yi di dund fee ci université Gaston Berger bu Saint-Louis tey université Gaston Berger doomu Thiès yaa ngi fay dund ay jafe-jafe yu méttee métti te loolu kenn mënu koo xam fekk demoo fa gis condition yi ñu nekkee tey suñu frère yaa ngi nii di waaj ñëw muy di nouveau bachelier yi te amuñu fenn fu ñu nekk moo doon lenn loo xam ne nag euh, ñu ngi koy ñaawlu parce que dem nañu fëgg bunt yëpp di fëgg bunt autorités yi pour ñu ñëw jàppale ñu ñu mën a fexe nu ñu résoudre problème boobu waaye tey benn autorité jàppalewuñu au moment où tey ñoom seen doom yaa ngi nii di dundu ci ay jafe-jafe yu métti ñoom ñoo ngi fee di campagne di jël xaalis bi di ko pasar pasaree di def ñeneen ñi di ko jël di ko maye feneen alors que xale yi tey ñoo ngi fee am na ñoo xam ne tey ñi ngi fanaan ci mbedd yi loolu nag mu nekk lu ñaaw loo xam ni ñu ngi koy naqarlu te di rafetlu ñu ko dara dara aussi. maire yi nekk Thiès naka nu ñu mën a jàppalee moo juste ñu ñëw wutal ñu ay logement comme yeneen suñu yeneen camarades yu nekk ci yeneen localité nu ñu leen koy defalee tey am na yenn ñoo xam ne xaaruñu sa seen mairie du leen ko defal mais seen doomu dëkk ñoo leen koy defal ñoom sans pour autant ñu xaar ci mairie ñun tey dafa lii dafa ñaaw trop nga ne tey da ngay am say frères yu ñëw doo am fenn foo leen dugal ngay dem say yeneen camarades yi nekk ci yeneen localité yi naa leen ah sam waay dencal ma ñii fii nii ba ma ñëw xool na leen leen lijjanti leen alors que yow tey say autorité war na nañoo mën a taxaw dimbali la defal la lool tey ñun ot Thiès sii nii ñaata autorité yoo xam ne lañ fi am yoo xam ne mën nañu defal loolu fajal lool loolu sans pour tey ñuy ñëw taxaw di fi ñaxtu. ñaata amuñu fa benn benn logement benn logement bi ñuy wax ni amuñu ko daaw rek lañ ñu génnee fii nii loolu te loolu dafa ñaaw ñu paqueté suñuy bagage génnee ñu ci mbedd yi ñu taxaw fa noonu alors que am nañ fa ak suñuy nawle te loolu dafa rafetul trop boo tooyee dañ naa la yéen étudiant Thiès waaye lu mel ni Thiès amoon sax logement te loolu dafa rafetul te ñu ngi koy ñaawlu trop mais mairie bu Thiès amel na leen subvention ah, war amel nañu subvention at mu nekk te war ñu koo jox war ñu koo jox mais moment bii nii ñu ngi ciy daw te jotuñu dara aussi loolu tamit nag ñu ngi koy fustiger di ci woo maire mu ñëw jàppale ñu ngir yàlla ak autorité thiessoise yëpp nag bàyyiñu ci kenn ñëpp lañ ciy woo ñu ñëw jàppale ñu te xam ne ñun sonn nañ taay nañu chaque fois chaque année ñu ñëw même problème boobu mooy posé wu te la ren nag dañoo jog taxaw tem pour fexe ñu résoudre problème bi benn yoon nga xam ne dootuñu amati benn benn problème bu ñuy wax muy waxi problème logement am na suñu frère yi di ñëw ëllëg wala ñeneen ñi fi war a ñëwaat beneen bureau bi fi war a nekkaat du jànkonteel ak du jànkonteel problème bi ñu am nii ñun ñii tey instant yi ñu yaak nañ plus de 3000 étudiants yoo xam ne ay Thiessois lañ fu mu ne ni ñoo ngi war a recevoir plus de 200 nouveaux bacheliers te amuñu fenn fu ñu leen dugal UGB xam ngeen loolu rafet naay sul rafetul dara benn yoon te war a recevoir plus de 200 nouveaux bacheliers amuñu fenn fu ñu leen dugal fu mu ne nii ñun dañoo mujj suspendre suñuy cours bàyyi loolu li ñuy def suñu ko yi ñuy def pour ñëw fii nii fexe nu ñu xoolee nu ñu résoudre problème bii nii alors que am nañu ay examen ay devoir yeneen yu ñuy xaar foofu mais dafa tey dafa nekk leen loo xam ne problème boo xam ne daf ñu ñor suñuy frère ak suñuy sœur ñoo war a ñëw te xamuñu fa dara ci université ñu ngi fay soog a ñëw ñun ñi fa nekk sax ñun d'ailleurs ñu mën nañ wax ni genre mën nañ euh, comprendre ni xaw def nañ fa ay at mën nañoo dëkku yenn yi mais ñoom ñii di soog a ñëw mënuñoo dëkku yenn yi te eh, problème bii ñi tey tax na ñu bëri tey jaaree fa bàyyi jàng problème logement yi tax na ñu bëri tey ñu bàyyi fa jàng ñeneen ñu ñu ni redoubler sans ndax lan grève de la faim ah. waaw juste si université bi ñëpp la problème boobu problème université bi lépp la ñun tey mais ñun problème bi ñu ñor tey mooy problème mu étudiant Thiessois yi est doomu yi nekk université Gaston Berger di fa dund ay jafe-jafe yu métti te lii nag ñu ngi ciy woo doomu Thiès yëpp ñëpp ñëpp bàyyi ñu ci kenn képp ku ñu mën a taxaw fexe ñu résoudre problème bi une bonne pour toutes neewu ñu résoudre ko benn yoon mu jeex déwén ñu nekkaat fii di si dawaat déedéet dañoo bëgg ñu fexe ñu résoudre ko ren jii nii mu jeex benn yoon ñu bañ a nekkati fi di fi wax ay waxi logement. alors moi c'est Mame Digal Mangassa chargé de communication du CETUS comme l'a bien dit notre président on en est à notre troisième sortie médiatique depuis lors nous tendons notre main à toutes les autorités thiessoises mais depuis lors nous n'avons pas eu de réponse maintenant Nous ne limitons pas seulement aux autorités municipales, mais nous appelons toutes les bonnes volontés à venir nous aider. Parce que la situation fi mu toll nii dafa metti démb dong benn dugub bachelier dafa ma contacter ci guddi gi ne ma moom kuuram commencé na mais instant yi amul fan la dëkk moo tax ba léegi commencé gul xam ne nag balaa geetuñu instant yi te mairie bii nii ñun ñooñu perdre le temps en quelque sorte parce que temps yii ci ginnaaw dañu waroon def premier point de presse. ñu ñu patienter on va régler votre problème depuis loolu ñu leen di woo ñu ñuy ñu ñuy dawloo ba léegi amuñu subvention amuñu dara léegi nag instant yi négocier watuñu euh, maslaawatuñ dañoo bëgg li ñu moom ñu jox ñu ko parce que ay Thiessois lañ tamit dafa neexul jur sa doom mu am bag war a dem jàngi ji euh, ñàkk fu mu dëkk te ko ba mu teree jàngi loolu dafa metti ci xol loolu la ñuy déplorer ñoo ngi ñaan képp ku si jàpp rek mu jàpp si parce que l'heure est vraiment grave